boobu noonu est-ce que du indi beneen candidat boo xam ne kenn yaakaaru ko ñu samp ko à la dernière minute wala amoo ci njort loolu. ah mais fi mu nekk mbir yi moom yaakaar naa ni euh, tey jii euh, président en fait moom mooy dogal. Mhm. yaakaar naa ni am ñu soo sax seen dàll dem pour jéem a xool ñu mën a. laabérante parce que laabérante dafa am solo. waaw waaw boo ko xool suy idéologie sax humanisme la quoi. Mhm. ñun ñëpp ñoo nekk benn parce que dafa mel ne Aliou Cissé nekk entraîneur ne kii mooy takk brassard bi. Mhm. mais équipe du benn nit kooku sax nga xam ne moom la ñu war a jël. mais yaakaar du moom kott moo war a mën a fexe ñu mën a ñu mën a gagné ñaareel bi tamit. Mhm. am na lu ma waxoon nee naa ni ku mu mën doon ci ñoom fu laay mujjee sax. Mhm. bu ñu ko jëlee tamit mais président du jël place am ngaa fauteuil bi kenn fay toog. mais man sama gis-gis loolu laa wax keroog ci ba ni ki ñuy jël. question ko wóoluwuma kenn. Mhm. mais adduna dafa tëradi. mais ki ñu jël boo na delloo njukkal président waat maanaam joxe engagement bu wóor dem ci sëriñ si dem ci comme ni nit ci kàddu la ñuy jàppee. Mhm. loolu moo suñu cosaan ne président wax dégg yàlla euh, yoon bi mu jël ci politique ci jukkoog taxawaay loolu ci boppam. loolu dinaa ko sàmm ci loolaa teg sama tànk. engagement ci honneur. nga ngay ngay ngay ngay. sàkk ci ki ñuy ki ñuy ki ñuy faral mais du yem rek ci honneur. parce yaakaar naa ni euh, bu ñu demee ba dem suñu mbokk di magum di suñu kilifa diine yi. Mhm. moo xam Tiwaawan moo xam Touba di nuyu suñu kilifa yu baax yi. dem ba foofu comme ni président Abdoulaye Wade defoon président Macky Sall en 2007 bu ci bi seetaan yi dugg loolu noonu la demee noonu waroon demee ne man mii président jël tànn ñëpp te gënuma leen ëpp ma leen xam-xam mais mooy tànn comme Aliou Cissé ni muy tànnee Sadio Mané ni muy tànnee keneen. Mhm. amee naa ko njëkkal boo xam ni euh, dinaa ci bàyyi xel euh, ba tànk yi mu jël. mu yoon bu baax ma ànd ceeg moom.